waa léegi. kooku féete na boor. ñu dem ci. Karim Karim Wade. Euh, le cas Karim si Karim Wade man sama bopp dama si am un problème scientifique. man mhm. sama problème mu bopp. Euh, bi nga xamee ne gis naa la ñu àtte si moom dama ne conseil constitutionnel bi dafa waroon def li mu wax fii ni mooy fonction cette fonction de principe là. Mhm. xam nañ ne contrôle de la constitutionnalité de loi contrôle des élections et tout ça léegi mu jox boppam un pouvoir philosophique même. de mhm. philosophie sociale. bon dama ne woon au regard du pouvoir politique politique au sens noble du mot. Mhm. pas politicien. pas politicien au sens philosophique au regard du pouvoir politique du conseil constitutionnel mënoon nañ ne le monsieur il est candidat. il a dit sur l'honneur qu'il a une seule nationalité. la a fourni une attestation. mooy oui, atte non. Mm. on continue quoi il a dit sur l'honneur qu'il est d'une seule nationalité il a amené une attestation consulaire xaw ma de quel pays et puis après on amène un décret et le décret est apprécié au regard du droit français et le droit français dit faire décret bi publié na ko français nga bon partant de ce raisonnement ñu ne ko bon kon ba nga naan yow kenn kese nga français nga à l'époque ah waxuma léegi de à l'époque je disais si j'étais membre du conseil constitutionnel j'aurais dit écoutez vous faites une régulation politique moo boobu maa ko utiliser sama débat bi na nga xool débat bi et heureusement qu'ils ont pris mon mot je dis faites de la régulation politique et dites qu'une candidature présidentielle quand même ça mobilise des centaines de milliers de personnes c'est de la régulation politique dès lors que lui son intention manifestée et prouvée c'est de quitter la nationalité française. Et par le décret bi mu versé plus tard. non le décret est venu. Mm -hmm. bee ko rey. décret bi ñu versé ko rey. donc euh, àgguguma si décret bi dama ne même bi décret bi ñëwee même bi décret bi ñëwee parce que ba ñuy àtte waat de ba ñuy àtte di ko dàq décret bi ñëw na kon si àtte bi laa nekk. Mhm. ko dàq décret bi ñëw na. Mhm. kon si àtte bi laa nekk kon décret baa ngi fi lépp ngi fi mais kiy àtte dafay raisonner. raisonnement bi commencement bi ngay déparé man maa ngi ci commencement bi. Mhm. commencement bi dama ne man sama xel. waa ji nee na man génn naa si France déclaré naa ko sur mon honneur parce que def naa ko fa ma nekkoon ne génn naa si France jox nañ ma sa këyit boo xam ne attestation la boo nee ne maa ngi génn si France. Mhm. tey ngeen andil ma strict loi wu France boo xam ne dafa ne génn goo feex man si ñëw ma décret. ce décret boobu dépendrul si Karim mu ngi dépendre si man bu ma doon Sénégal à l'époque ah li ma doon xalaat laa wax ah. à l'époque dama ne conseil constitutionnel moo na def régulation en disant que bon euh, dans tous les cas il s'agit d'une campagne présidentielle waa ji wane na ne si xolam ak jikkoom ak jëfinam bàyyi na france intention bi. waaw bàyyi na France. Mm-hmm. c'est tam bàyyi France bi sax décret boo nee na ko léegi donc waxtu bi may àtte dama naan je considère tout ça comme ku bàyyi France donc tu peux être candidat à la la man dama may wax laa wax dama noonu. loolu lay xalaat noonu laa koy gisee mais conseil constitutionnel naneen la ko gise tax naneen la ko gisee naneen la mu ko gisee su ma ko xoolee tey du ma jox suma bopp dëgg du ma leen jox toor comprendre nga ma mm-hmm. ma jox suma bopp dëgg du ma jox toor parce que man principe yi taxoon may wax dañ ma si fekk si fii en matière constitutionnelle en disant les principes constitutionnels bi ñuy juge affaire u Karim affaire électorale la affaire électorale c'est le code électoral c'est pas la constitution le code un contentieux d'ailleurs dans le code électoral on a parlé de peine d'emprisonnement celui qui fait ça fait ça tu seras emprisonné c'est peine d'emprisonnement <laughs> doo ko gis ci constitution mm-hmm. donc code électoral c'est une loi civile administrative et en même temps judiciaire pénale aussi c'est un mélange d'administratif de civil de judiciaire et de pénal donc rien n'interdit au magistrat entre guillemets qui sont au conseil constitutionnel d'utiliser le raisonnement judiciaire parce qu'il s'agit d'appliquer le code électoral et en disant écoutez chef dans le droit pur jour bi nga déclaré ne dootoo français malheureusement il est établi ko français nga woon par conséquent tu as dit quelque chose d'inexact mooy li dal Rose Wardini hmm. ñu topp ko ci eh, yow heure euh, dina dafa dafa mujjoon dafa rëccoon yow nag rëccogoo mais ki rëccoon tam dabu na tey loolu wees na mais yow ñun la nangul ils ont adopté un raisonnement judiciaire boo xam ne jafe na tey pour ma di ko. dafa sévère. c'est au nom de leur rôle de euh, de, de régulation am na sax ñu ko wax oui c'est très sévère mënoon nañu. c'est très sévère yaatal c'est très sévère accepter candidature c'est très sévère man je dis que c'est très sévère mais ils ont raisonné ils ont utilisé dañu utiliser raisonnement judiciaire parce que il faut faire attention aussi. mais seen cër la xaaral teelul euh, jigéen ji nekk si këram di fay luyaas toog juróom-ñaari weer fayul luyaas ñoo bëgg tribunal pour génn ko mu ne samay doom yaa ngi nii dañuy jàngi l'école nawet baa ngi ñëw danga ko fay bàyyi ñeenti weer ba nawet ji passé du fayati dañ koy génne alors on va dire c'est très sévère la loi est sévère cette lex dura lex aussi man au de départ j'étais politique j'étais politique je pensais politique mais bi ma liiree atte bi parce que atte yor naa ko yor naa ko yor naa ko bi ma ko liiree strictement par rapport au code électoral je dis ils n'ont pas tort ils sont très sévères mais ils sont des juristes le juriste nag il est dur parfois du moins mm. le n'est pas dur mais la décision <laughs> est souvent dure parce que c'est une logique implacable waa si demee Qatar ba tey ba mu fasee yéen nekk candidat ba tey waaye ngir yàlla waroon defal ay këyitam nag loolu nag sàggan la. mooy euh, part de responsabilité boobu la ci am. du part sax bu rëy rëy la toute la responsabilité la c'est pas une part dëgg dëgg man su ma dee sénégalais di français fas yéene nekk candidat en deux mille vingt huit deux mille vingt cinq sama français dina jeex dëgg dëgg doo toog ba deux mille vingt huit ba ñu ne yëf ubbiku na. ngay daw diw ci kayit kooku sàggan mënu koo wees sama jugement personnel la nag. parce que xam naa ko bu ma sañoon loolu du ko dal. xam naa ko yàgg na nu maax bàyyam ak moom ak lépp su ma sañoon loolu du ko dal si moom xam na ne ma ko xamee wante nag sàggan na. sàggan pire moo ko dal.